Assalamualaikum grup whatsapp Bou Marassé Sofër Sit Place Tata Sofër Minikar, Sofër Njaga Njaay tous les sofërs de la Bou il faut être fagaru parce que là état là c'est pas état qui discute avec les secours. Regardez ce que El Malingay a fait. Il a gassé la tabaski et, les, et, et tout ça qu'on a préparé sur les passes. Beaucoup safoor si man la doyen Daoud Barakas di ñaawlu dogal bi nga xam ni il Malick Ndiaye jël na mu nekk dogal boo xam ni toroxal sofóoru ko dafa jóg ndaxte el Malick Ndiaye yaa dootul saa a la saa de sofóor il ne doit pas le fuyote te el Malick a fait rentrer dans notre il a l'entrée dans le cahier des secours du Sénégal et le cahier des transporteurs donc Nak, El Malik a fait tout ça donc il faut que nous aussi on prépare un contre-attaque parce qu'il nous avertit. dans la Magal il nous avertit. et dans le Gamou il nous avertir dans tout ça. Il veut attaquer le Magal et attaquer le Gamou. Le chauffeur avait un terret comme le tailleur. Le tailleur avait un terret. Même les cultivateurs oignons, les cultivateurs pommes de terre avaient leur terret. La tabaski, c'est la terret. El Malik ne connaît pas le terret. Il pense que il faut faire ce qu'il veut. Il pense que il faut attaquer le traite des chauffeurs parce que le traite des chauffeurs c'est le Magal et le Gamou et la Tabaski et le si S'ils attaque ces choses-là, il faut qu'on les réponde avec la technologie, avec la réflexion. mbokk yi bu maraîcher bu nu sàgganu di yàqu El Malick yoon wi jaar ak ñun yoon la woo xamante bu demun ndànk dana nu sànq te la transport risque d'être la transport gouvernemental risque d'être la transport transport gouvernemental de il faut le unir doon benn bopp waaye El Malick de boo indee benn bopp it mu indi beneen bopp bopp bee bokkut ci sunu bopp parce que bopp dem dikk bokkut ak bopp sofóor normal waaw bopp dem dikk bopp yuy dox ci ordre lañ la tête de militaire Senghor daal jaaxle nan jaaxle nan daal ñun daal lii daal lii daal xanaa nu bàyyi ko ak yàlla nan leen ko bàyyi ak yàlla tayab nan leen ko bàyyi ak yàlla tayab nan leen ko bàyyi ak yàlla tayab il malik bàyyi nañ la ak yàlla tayab lii nga nu def bàyyi nañ la ak yàlla tayab waaw nan leen ko bàyyi ak yàlla rek tayab nan leen ko bàyyi ak yàlla waaw nan lañ ko bàyyi ak yàlla jërëjëf nan lañ ko bàyyi ak yàlla